quatre-vingt quatre-vingt-cinq quatre-vingt-dix pour cent ñu koy fonctionner mooy les tendances lourdes je ne de bureau témoin li mooy on on s'assurera vers un deuxième tour maintenant hmm. de proclamer des résultats hmm. comme ni ñu ko waxee en matière électorale les euh, les les au niveau des départements les commissions de recensement au niveau des départements ñoom ñooy les seuls daal di établir le rapport yéegal ko mu dem ci commission nationale de recensement commission nationale de recensement mënul changer virgule ci information yu jóge foofu moom da koy centraliser daal di déclarer les résultats provisoires hmm. su ko déclarer nag am na un temps contentieux bu temps contentieux boobu passé conseil constitutionnel am na sañ-sañu déclarer les résultats définitifs kon fi mu toll nii lu dul lu jóge ci organes yooyu amul benn information boo xam ne lu ñu mën a sukkandiku la pour wax ni dina am kuy jàll premier tour wala dinañ dem deuxième tour kenn ku nekk li ngay liggéey mooy données yi nga yor ak njort bi ñu ci am mais euh, à part ça ñun ñett dañuy toog di déglu ba commission nationale de recensement jot tour les PV yu jógee tous les rapports yu jóge ci ci département yi ak ak PV yi bu boobaa dinañu wax mbir mi naka la tëri ñun foofu la ñu mën a yem pour le moment. waaw Ousmane. man dama la hmm. bëggoon a poser benn question à propos même de la diaspora. Hmm. parce que gis nañ ne vous sa fait une forte percée euh, au niveau surtout de la diaspora européenne et au niveau des États-Unis mais là u peut-être où vous avez un c'est au niveau de la diaspora africaine et dama seetlu ne bi ngay def tournée boolewoo ci diaspora africaine bi. est-ce que du loolu moo waral yenn résultat yi nga xam ne moom nga am ci yenn dëkk yu mel ni ay Congo ay Zambie ay Niger ak Mali gi nga xam ne aussi jege nañu jàpp ne foofu def nga erreur vraiment ci sa stratégie de de massification du parti. bon xam nga ñun suñu génie c'était c'était de faire l'ensemble du territoire national ak diaspora bi yëpp mais quand même temps bi dafa gàttoon parce que dañuy lancer tournée tournée internationale. après après bi ma présenté sama livre vision au Sénégal c'est-à-dire le septembre parce que il m'a fallu ma jël quatre mois tëju pour bind loo xam ne sama gis-gis la ci Sénégal parce que c'était important pour man en tant qu'acteur politique ma présenter sénégal yi une vision bi ma ko présenté le 16 septembre je crois que fin septembre laa commencé tournée internationale bi def naa un mois boo xam ne dama enchaîné tournée internationale bi lép xaju ci woon malheureusement mais def nañ ci le maximum ci lu ñu def parce que li taxoon ñu ñu ñu ñu ñu ñu privilégié loolu mooy bi ñu dooree politique ak léegi dafa am loo xam ne diaspora bi rawatina diaspora Europe ak Amérique bi ñoom dañ ñu ko wante boobu man mosuma faa teg tànk su ngeen fàttali ko élection législative pratiquement dans toute la diaspora nous étions entre les trois les les trois ou quatre premiers ba pare mu am sax koo xam ne dañ fa gagné woon largement ku mel ni Canada donc dañ ma wonoon ñoom rien que sur la base de li ñu doon gis ci ñun ci télé yi ci rajo ak ci réseaux sociaux yi une adhésion massive ba pare mu jaral leen ñuy dajale seen xaalis di ñu soutenir financièrement parce que xamoon nañ ni ñun amuñu doole donc ne serait-ce pour ça il fallait ma def tournée boobu delloo leen jukkal mais surtout consolider base boobu ba nga xam ne dinañ ko dëgëral te tey résultat yi feeñ na parce que te à part Canada gagné wuñu woon yeneen diaspora yi mais on était bien placé mais tey a l'issue de cette tournée gis nga ni pratiquement diaspora bi yëpp gagné nañ ko euh, France on est arrivé deuxième mais li ci def yëpp pratiquement soo seetee ak seet Italie mais li ci def yëpp en tout cas diaspora occidentale bi on est arrivé quasiment premier bi ñu dellu see nag mu tombeek ñuy annoncé résultat naa bi temps bi gàttoon na pour ñu mën a enchaîner d'autres tournées à l'intérieur de l'Afrique parce que voyager à l'intérieur de l'Afrique quelquefois c'est un peu plus difficile que voyager même en Europe malheureusement mm-hmm. loolu peut-être andi na gàllankoor mais teewul on est relativement satisfait des résultats qu'on a kenn xamula woon politiquement du woon da nga nekkoon ci politique ba ñu xam la nga nekk ci parti bu mag wala nga nekkoon ci appareil wala nga nekk amoon ay responsabilité d'État non ñun bi ñuy démarrer politique on a démarré à partir du néant politique. donc su nekk ci juróomi at yàlla may lañu ci lii dañuy sant yàlla et puis le travail continue on continuer à sillonner et le Sénégal parce que bi fii Sénégal rek am na zone yu bëri yoo xam ne tey wuñ fa tànk am na zone yoo xam ne ci campagne électorale bi lañ fa doog a dem te pourtant on s'est classé deuxième ou troisième avec des scores appréciables. Hmm. donc loolu dañ koy continuer dañ koy woyale parce que le travail politique c'est un travail de longue haleine nit ñi dañuy def ay vingt ans vingt cinq ans pour construire un appareil complet hmm. donc ñun ci juróomi at suñ ci amee lii avec l'engagement massif des jeunes particulièrement nga xam ne xaaruñu ñu laaju ñu xaalis mais ñoom ñooy substitué wu à nous jël seen xaalis cotisé ko dem defar seen i t-shirt installé seen i cellule installé section kon loolu ku ko am sa veut dire que c'est Mais on va continuer à travailler pour Gunko Yatal parce que notre objectif à terme, c'est la première formation politique au Sénégal. Euh, soo xoolee les élections bi nous mu dérouler. boo ci génnee parti yu mag yoo xam ne ñoo jotuñoo participer lu mel ni PDS mais soo seetee élection bi ni mu déroulé ñun ñoo ci bokkoon nañ ñu ci gën a néew coalition pour ne pas dire presque amuñu coalition mais résultat bi ñu am li mu firndeel rek mooy Euh, dans la recomposition politique bi nga xam ne ñëpp gis na ni mu ngi am. Mmh. il faudra compter avec ce qu'on est en train de faire et incha allah on va continuer à travailler et à consolider ça. voilà Sonko ñaari euh, ñaari question laa amoon pour laaj la ko. Mmh. Babacar Dione. benn bi chiffre chiffre yi nga xam ne am nga ko yow Idrissa Seck yaakaar nga ne yow yaa jiitu Idrissa Seck wala boog da ngay nekk ci ginnaawam. beneen bi euh, lu mu ne ko ma ci tontu. <laughs> bon beneen beneen ah, bu fekkee am nga chiffre ba xalaat ni ba xalaat ni euh, deuxième tour dina am donc war nga mën a xam ndax yow Idriss Seck kan moo jiitu kan mooy dem deuxième tour ak ak euh, Macky Sall. <coughs> beneen non c'est-à-dire fi toll nii. Uh-huh. balaa ngay poser question bi. ñun li ñu waxtaan suñu biir ñun opposition. Uh-huh. du la guerre des chiffres boobaa dañuy def ni gars yi di def. Mm-hmm. ñun li ñu wax mooy les chiffres de l'opposition cumulés. moo ëpp les chiffres de Macky Sall euh, euh, ba tax ñu ne deuxième tour mënul ñàkk ñun loolu moom constat la après nag ci biir opposition bi kenn ku ne li mu am loolu duggaguñ ci te suñ ci duggee day mel ni dañuy day dañuy ubbi plusieurs fronts parce que man man su ma leen joxee chiffre Idrissa génn joxe chiffre keneen joxe chiffre hmm. mbir mi day gën a jaxasoo mu nekk benn benn foire boo xam ne dañ ko mën a gérer mais loolu da def tuuti fii ak suba wala gannaaw suba commission national de recensement dina joxe ay chiffres yëpp dinañ xam euh, lan mooy li kenn ku nekk am tey jëm. dëgg la beneen question bi ma la bëggoon laaj moom mooy boo xoolee vote yi nga am yëpp c'est dans le dans le sud du pays en Casamance te xam nga boo xoolee Macky Sall ñu ko doon reproché benn affaire benn penchant ethnique boo xam ne yéen sax je crois si seen meeting yi doon ngeen ko wax am dafa am benn benn benn région en tout cas wu benn xeet boo xam ne dañ ko privilégié woon si si nguuru Macky est-ce que yow yaakaaroon ni avec ce vote là du sud bi nga xam ni moo la jox presque Bignona ak Casamance ragaloo loolu bu fekkee nekk nga président de la république loolu inquiétude boobu aussi daal di continuer di am. non dafa am ñaar ba ñett man mosuma dugg ci ay débat ethnique parce que ngay wax nit ñi rek man sama maam bu jigéen bu jur sama yaay bu lay sow la tudd dëkk Ndiayène Pendaaw alpulaar la. sama yaay di séeréer dëkk Xombol sama baay di waa Casamance donc man foo jam rek jam nga ma man du ma dugg ci débat ñaareel bi mooy man dama am satisfaction ci waa Fuuta niñ ma accueillir te jàpp naa ni Fuuta sax bu defoon ci daanoo li neew li fa opposition bi di am man maa ciy doon deuxième dem naa Fuuta j'ai été accueilli d'une manière extraordinaire parce que samay mbokk laa fa fekk man Sénégal fu ma taxaw rek samay mbokk la ñaareel bi mooy nit ñi dañuy wax Casamance mais xamuñu la configuration de la Casamance la Casamance est la zone la plus euh, cosmopolite du Sénégal Casamance di nga fa fekk ay wolof fortement implanté di nga fa fekk ay tukkuleur Ziguinchor gi ma dëkk am na quartier bu tudd Alwaar boo fa demee ay tukkuleur kese nga fay fekk ñu nekk fa depuis des décennies di nga fa fekk ay séeréer di fa fekk ay manjaak di nga fa fekk ay njaago di nga fa fekk ay joolaa di nga fa fekk ay ñëpp nga fa donc Casamance fu ñu mun a identifier fondamentalement par rapport à à une ethnie wala yu demee noonu su doon une ethnie rek moom a wooteel Casamance je n'aurais jamais la majorité parce a une majorité écrasante en Casamance amu ko y a les mandeng y a les et cetera c'est beaucoup plus complexe. deuxième constat bi mooy mais ñun suñu chiffre bu ñëwee di nga xam di nga gis est-ce Ndakaaru gi sax ëpp ci waa foofu que que Ndakaaru gi vous avez vu que pour Parcelles Assainies les chiffres qu'on a on s'est classé deuxième gis nga ko feneen ak feneen ak feneen donc soo demee Saint-Louis on s'est quasiment classé deuxième de je ne suis pas Saint-Louisien donc suñu suñu suñu score mun ñun munoo ko. identifié par rapport à une localité précise maintenant en en définitive wax nañu tam ni nit ñi Sénégal il faut ñu xam li ñu bëgg soo ñëwee ne damay politique liñ lay jéggaguñ ci <laughs> aujourd'hui aujourd'hui mon souhait et, et mon espoir c'est d'être président de la République du Sénégal en 2019 mm. donc je suis focalisé sur ça euh, nous avons bon espoir par rapport ak li ñu gisagum nous attendons la proclamation officielle des chiffres Ma, mon espoir, c'est d'être au deuxième tour et euh, de gagner à, à deuxième tour. donc kuy kuy yootu président de la république ci jamono ji ñëwee xam nga ni waxu waxu maire yi loolu lu ñuy xool la après. kon jàpp na ne jaay yow yaay dem deuxième tour daal fu mu toll wax bi leer na wax bi leer na de. déet déet su ma amuloon su ma amuloon yaakaar dem deuxième tour kay du ma nekk fi ba heure bi sama quartier général nee naa la démb ci conférence de presse j'ai amul benn candidat. Hmm. du Ousmane Sonko du Idrissa Seck du Macky bu war a mën a taxaw ne man gagné naa élection yi wala man maay dem deuxième tour loolu moom euh, euh, euh, nañ ko nañ ko bàyyi rek kenn ku nekk def liggéey bi mu war a def techniquement et c'est ça le charme de la démocratie parce que liggéey yi ñuy def nii c'est pour demain su dee demain conseil commission nationale de recensement dafa dafa joxe des résultats différents ñu mun a am sañ-sañ ñëw ak suñu chiffre ne ko d'accord ñu suñu déposition recours hmm. mais c'est pas pour sortir parce que dafa am des organes habilités pour le faire mais su dee ñooñu nee nañu Massamba ak Mademba ñoo dem deuxième tour on considérera su dee am nañu kenn ku ci contesté il contestera il donnera ses chiffres mhm. c'est ça le charme de la démocratie c'est pourquoi il n'est pas admissible que mu am des des des des des des des des organes de presse yu yu bëgg a orienter ou préparer les consciences ni diw war na mun a jàll au premier tour ça c'est pas le rôle des organes de presse C'est ça qui a amené notre sortie hier. Et je je considère que peut-être avec la DGTV, euh, les informations que j'avais n'étaient pas ça. Mais pour tout le reste, je maintiens ce que j'ai dit catégoriquement, parce que ce n'est pas le rôle des organes de presse. Organes de presse de la loi. Et aujourd'hui, CNRA Guénena, euh, le président de la Cour d'appel Guénena, euh, démb l'Union des magistrats Guénena, ñëpp nee nañ ni lii du cëru organe de presse. RTS qui est national ñu koy fay suñu impôt warul jox Boun Abdallah Dionne mu génn naan day joxe des résultats unilatéralement di déclarer un vainqueur c'est une faute grave et c'est une violation flagrante du code euh, code électoral et su amee man dama di koo xam ne gannaaw yàlla amul lu fees sama bët hmm. su ma waree wax dinaa wax li wax dinaa ko wax c'est pas parce que Massamba la wala Mademba wala c'est un organe de presse et qu'ils ont les moyens après de taper sur toi non loolu man su ma jàppee ni lii di doon dama koy wax et puis foofu laa ci pare j'ai tourné la page de contenu les Sénégalais qui nous regardent ñoom ñoo ils peuvent juger et apprécier li may wax est ce que lu am la wala lu amul la et li may daanelee mooy hmm. foofu nag baax na ci laax bu tàng parce que gis nga démb suñu génnuloon <laughs> avant minuit dina liñ doon def dinañ ko def loolu laa gëm kon maa ngi réitéré li ma wax euh, par rapport ak euh, directeur PDG euh, seen group bi di El Hadj Ndiaye comme ni ko waxee sama goro la sama xarit la sama voisin la amuñu benn problème yàgg nañu liggéey en bon entente je crois que 2 bi moom laa ëpp lu ma sa a def émission depuis que j'ai commencé en politique ba léegi. Mm-hmm. ça je le dis haut et fort. et donc s'il y avait une chance de contre moi du ma ko yooyu day am de temps en temps mais c'était pas quelque chose de méchant. et vraiment ñu ngi rafetlu seen liggéey di leen gërëm di leen sant. ñun tamit Ousmane ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nga ko. Mm. di ko rafetlu nag par ma voix aussi euh, groupe de stv yëpp group Origine SA sax laay wax. Euh, ñoom tamit euh, nangu nañu kàddu yi nga xamante ne yëkkati nga ko jëmale ko ci ñun ñu koy rafet lu baax. Mm-hmm. di wax ne donc à partir de maintenant jàpp nañ ne daal vraiment lii c'était juste un incident te dépassé nañ ko Ousmane ñu lay gërëm di la sant bu baax di la wax aussi bonne continuation pour la su jërëjëf Ousmane Sonko mi nga xam ne daal euh, ci candidat yi la bokk. bi ñu doon def démb 24 février mu bokk ci juróomi candidat yi nga xam ne ñoom ñooy xëccoo li nga xam ne moo di